fan ak juróom ci weerum février atum 2019 dalee nag jàmm ci xibaar yi ñeel campagne électorale bi li ci gën a fees bokk nag fi nekk kon njiitum réew président Macky Sall daal na jébbal ab njaalam Ousmane Sonko ginnaaw nag ba oto boo xam ne ay militangam la defoon def rek accident ca Louga ma di Niang moom nag slogan bi muy wax fu mu dem rek daal ne toj na Ousmane Sonko ci Medina soirée moom nag mbébétam mooy mu def rek ba digganteem ak état ak këru diine yi gën a xittax Idrissa Seck bu coalition Idy moom nag li mu bëgg rek mooy jafe yi nga xam ne dem na ci wàllum transport ak waa Kidira nag la ci doon waxtaanal ñu ñëw ci yaatal bi. président Macky Sall daal ne jébbal njaalam Ousmane Sonko moom nag bu mu nekkee ci Koungheul la daal di def fa loolu waaye nag mi ngi woo chauffeur yëpp ñu daal di daw ndànk wàññi seen ay vitesse daal di moytu li nga xam ne mooy accident yi Youssoupha Mine ak Sélé Mbaye ñoo ñu fa teewaloon. dañ ma annoncé benn accident encore ci Casamance benn candidat. candidat Ousmane Sonko dégg naa benn cortège am benn bus moo def démb ci guddi accident avec un mort et 17 blessés ñu ko koy jaale di ko jaale mbokk yi ñàkk di masawu ñi blessé waaye di profiter aussi di lancer appel ñëpp ñuy dawal des conducteurs des chauffeurs jamono ji nit ñi dañu nekk ak excitation duñu nelaw lu bëri vraiment ñu yokk sécurité bi wàññi xel yi pour ñu mën a wàññi également accident yi ndax daanaka boo koy xool pratiquement ci région yëpp la kon ñu ngi leen koy jaal ay bés rek moo des ñu daal di dugg ci li nga xam ne nag mooy wote yi Madické Niang daal di nag nga xam nekk nit koo xam ne ci internet beeg yépp ñu ngi koy partagé ndax dëkk ba mu dem daal di ne toj na ñu daal di xool détails yi Bamba Diagne moo ñu fa teewaloon ak El Hadj Badiane. asalaamaaleykum waa Louga. dafa am xew-xew bu rëy bu am. démb dama dem Gosaas toj ko. nga defe ni fa lay yam ma dem Fatick toj ko.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 Ousmane Sonko daal di nay nag bàyyeendi campagne bi daal di ak caravane moom nag daal di dem foofu ca Casamance président Sonko dem na gisante Khalifa Cheikhna Silla démb ci ngoon foofu ca Médina Soirée waaye nag moom moomu di njiital Pastef wax na nag li nga xam ne bëgg na ko def ci këru diine yi ñu déglu ay kàddoom ak Abdoulaye Dione ak Ali Diallo. di am mbégte bu rëy a rëy ci teew fii tey Médina Soirée. ci ziar bi nga xam ne ñëw nañ ko ziar suñu xalif suñu wayjur suñu kilifa cheikhuna cheikhul islam alaaji alaaji karamba suwaane ñëw ci bërëb bi am loo xam ne néew na torop ci ñun fi toll nii ndax jot bi mayuñu ko mooy am chance ñëw taxaw tari lenn ci ay aayaat ci li nga xam ne mooy téere bu tell bi moom mi nga xam ne laa rayba fiihi hudan lil muttaqin njàng mi ku ko dégg xam ni liggéey bu rafet lañ ci def ndax ahkaamu tajwid yi leer na nañ maarijul xuruf bi leer na nañ kon ñu gis fi mooy caaxaane wuñu lii nga xam ne mooy téere bi lii nga xam ne mooy waxu borom bi subhanahu wa taala loolu nag dafa am solo parce que ñun ci suñu gis-gis ci suñu programme politique dañu wax ni li nga xam ne mooy diggante wala relation état ak diine bi il faut ñu accepter nag ni ñun Sénégal réewu gëm-gëm lañu réewu diine lañu moo xam diine nasaraan wala diine catholique moo xam diine islam. njiital coalition Idy 2019 di Idrissa Seck moom nag mi ngi wëyal taxawam ak doxantoom ak nit yi foofu ca Kidira moom nag wax na ci li nga xam ne mooy jafe-jafe yi am ci wàllum transport bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom mu nañoo def rek li nga xam ne dina def mu yëf yi saafara ak jafe-jafe yi nga xam ne am na ci wàllum transport. di wax suñu mbokku transporteurs yi suñu mbokku chauffeurs yi suñu mbokku apprentis yi li ngeen ma wax lépp ci tracasserie yi ngeen di daj ci yoon wi ak sonal bi leen di sonal ak metital yi ñu leen di métital loolu yëpp dégg naa wax naa ci à plusieurs reprises mais dafa mel ne dañu ko tegul ci télévision bi moo tax ma ci revenir pour wax leen ne incha allah après le 24 février 2019 xam naa kàngam yi séq transport bi ak ñi ci yëngatu danañu am ak ñoom waxtaan bu yaatu sur le secteur du transport ak saafara yi ñu ci war indi yëpp ñu séq ko ak yéen waxtaane ko ba tracasserie yooyu yëpp dañ incha allah. xibaar yi ci gàttal. président Macky Sall mi ngi woon foofu ca Guinguinéo waaye nag moom gis nañu mu bokkal langue politique yi dañuy fontu rek te kenn mënu ko cee daan moom nag continué na li nga xam ne mooy doxantoom waaye mi ngi woote nit ñi ñu gën a xibbi seen bët te xool daal di nag wax li nga xam ne mbébét na ko ngir rek Guinguinéo gën a jëm kanam Mouhamadou Lamine Massaly bokk ci coalition Madické 2019 mi ngi woon foofu ca Louga ginnaaw ak meeting boo xam ne Madické ñaa na ko fa moom na baaraamu tuuma président Macky Sall daal di ne dafa bëgg élection yi kàddu yi nga xam ne ki fi nekkoon njiitu réew di président Abdoulaye Wade yëkkati na ko moom nag nit yaa ngi koy tontu tey mu Njaay Siise mi nga xam ne moo jiite ONG 3D moo ci indi ay kàddu waaye moom li mu bëgg mooy daal di woo rek président Abdoulaye Wade gi ñu jéem seet noo xam ne nañ koy waxtaanee lii élection yi ñu def ko ci jàmm lii moo nekkoon xibaaru campagne bi ñu leen di jëfal bu baax a baax jox leen dig daje suba bàyyi leen ngeen wéyal suñu programme ci biir Dakar Actu